asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk yi fi teew maa ngi leen di nuyu ci turu Serigne Touba Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy jiite màggal gi at mu nekk ni ko ku fi nekkal sëñ Tuubaa rek daan jiite noonu tam la koy jiite muy bis boo xam ne nag bis bu rëy la ci yoonu murit di leen nuyu ci turu sëriñ Abou Mouhamed Mbacke xalifa sëriñ Mouhamadul Maamoun nga xam ne mooy jiite màggal gi di leen nuyu ci njaboot turu njabootu borom. gaawaan gépp maam Cheikh Anta euh, sëñ Ibba Tall ngi ni teew ak na ñeneen ñu teew ñoo xam ne ñoom ñëpp sëti maam Cheikh Anta lañ bis bi nag dafay bis bu rëy ci lislaam ndax mën nañoo wax ne euh, mooy bis bi nga xam ne moom la ñuy feete victoire bi Cheikh Ahmadou Bamba am ci colonialiste yi biñ ko exilé ndax fu nekk yóbbu nañ ko fa ba mu dem Gabon ba 11 lañ ko delloosi ndax ñàkk pexe ci moom ak jaaxle ci moom ndax nañu sonne woon pour génne ko noonu la ñu soñe sonnewaatoon pour delloosi ko ne kii nuñ mën def nañ teqali kook moom defe naa ku jàng Moussa Ka dégg Moussa Ka ne seen labbe yu mag yi ne leen kii delloo leen ko mbaadun baax le delloo leen ko mbaadun baax le ndax pexe muñ def rek moo xam dañ koy def seen pexe yi baatini bopp wala dañ koy def pexe yi sayr dara du ci sotti am na ci yoo xam ne jataay bi xat na te mëneesu ko fee yaatal waaye màggal gi daal mën nañu wax ne mi ngi tàmbali pratiquement 1903 euh, ndax bi sëriñ bi wàcce kenn ko ne xam na ne bi mu fiy jógee Ndar le gouverneur général nekk muy capitalu Sénégal mais bi muy ñibbisi Eh, bi falastine woon kayit yi nga xam ne moo ko génne woon réew mi bi mu dellusee fokk mu dellu ndar pour signer fa ay kayit yi wane ne bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko ci fi ñu ko génne woon ci exil bi xëy na jugement bañ ko jugé woon sax mën naa am jeexaluñ ko waaye daal eh, la fañ taxoon ñu génne ko bàyyi nañ ko dem googu mu dem ndar nag signé ji kayit yooyu moo tax bi muy dëpp mu yeex ndax koor gi kenn ku ne xam na ne Sanusi la ko woore koor gi Sanusi la ko woore te bu ñu waree ba teg ci fukki fan ak juróom la ñuy tàmbali màggalu Daaru Salaam fukki fan yi ak juróom-ñeent la tase ak maam Cheikh li tax ma ne fête nationale la euh, ci victoire bi moo di Cheikh Ahmadou Bamba bi mu dikkee àdduna mil 1852 ba 1903 boobu amul fenn fu mu mës a toog euh, ay doomam toog fa walla ay taalibeem toog fa walla ay xaritam toog fa di ko wër fu mës a nekk rek daanaka ci loxo yi tubaab yi la nekk walla li tubaab yi bañ muy taalibe yi wër ko mu kon musta am noflaay lu jiitu bis boobu kon nag ginnaaw bis boobu bi mu wàccee le 11 novembre daf ne maam Cheikh Anta ginnaaw bu mu ko recevoir ca ba noppi ci port ba daf ko wax ne ko bul ma fekk fenn foo ma dégg na nga dem Darou Salaam nekk ma fa ndax yow sërike bi ma indi ci sa loxo laa koy teg te Darou Salaam laa la koy joxe. lii ñuy màggal mooy bis boobu Serigne Touba agsi Daaru Salaam gisee ak maam Cheikh li ci aju lépp xam naa communicateur yi danañ ko wax maam Cheikh eh, li ñu gis ni bu président de la république di ñëw ñu peinture garab yi ñu peinture bu weex ak di def ay takk ay drapeau ci garab yi ak ci buntu kër yi loolu ca boobee la ko maam Cheikh Anta tàmbale woon garab yi mu wut ay piis ay piis wodd leen sàkket yi féeteeg mbedd mi mu wut ay piis muure leen ko ba Sëriñ bëtam ci lu rafet rek la doon tegu ba ni mu agsee fii mu tëdd tey foofu moo nekkoon néegam bi muy sanc Daaru Salaam ci eh, mille neuf cent ci mille neuf cent quatorze de 1814 1817 1814 la ko sanc 1887 84 Daaru Salaam ba ni li mu koy sanc 1884 ba def fa at fa def ba dem sanc Touba 87 diggante boobu yëpp ci foofu la dëkkoon ci Daaru moo tax te sunu borom moo ko joxoon ndigalul mu dëkk fa ndax boobu mi ngi dëkkoon Mbàkke kër Mor An waaye bi nga xamee ne xat na fa mu ñaan sunu boroom wax ko ne ko sunu boroom maa ngi lay ñaan eh, nga may ma ab dëkkuwaay boo xam ne bii dëkkuwaay la boo xam ne bu ëllëgee mën naa doon sax sunu kër yi sa sa'altuhu wa innahu mannaanu dooran biha taalu lanal jinaan maa ngi koy ñaan kër yoo xam ne bu ëllëgee mën naa nekk suñu kër yi àddina du yóori yej xol yaa kër yi mu junna anillahi ni wadu yoral jànn suñu borom sama kër yi ma lay ñaan daaru salaam ak yeneen na def nag ma wutal barrage boo xam ne day mel ni mur de Berlin Euh, ibliis du fa mën a dugg lu laal ci iblis du fa mën a dugg euh, ba ca biir mu wax ne ijhal salaamatan taduumu yaa salaam liya walil iyaali fi daaru salaam yow sunu borom nag ma defal jàmm ci sax dàkk ak njaboot gi ma bàyyi daaru salaam nga defal leen jàmm ji sax dàkk rab biha min al wara maa laa yuad yaa xayra man rabba wa xayra man waad sunu boroom dëkk boobu day mbooloo nga fu mu bari ba mu koy wax nag sañcaan amagul mbooloo amagul waaye boobu sëriñ bi lam fa bàyyi woon rek moo juróom-ñeent fukki taalibe euh, maam Cheikh Anta bokk ci muy téeméer mu ne ko jëlal dëkk bi ak taalibe yi rafetal naa la ko te nga toog fi nekk ma loolu moo waral Daaru Salaam lii moo waral màggal gi maam Cheikh Anta wax ne ñaan Sëriñ Tuubaa ne ko xanaa boo boo boo sañee ñaan sa boroom bis bi mu lay teg nattu nga di ko màggal bis bi mu la tegee nattu bii ba nga jotee tubaab bi bañ génne la nga ñaan ko mu may la nga di ko màggal yow ngay màggal sa bisub naqar war na ma war naa jaar ci ñaan sunu boroom mu may ma bis bi nga ñibbisi mu muy sa bisu mbég ma di ko màggal li mooy wax màggalu Touba ak màggalu Daaru Salaam ba ñu ko tàmbalee ba fi mu nekk nag bu ñu ko seetloo daanaka bu déwénee mu mat téeméeri at ak ñaar fukk bu ñu ko tàmbalee ba léegi tàmbaliwaat bu mujj bi di 1940 loolu mooy maam Cheikh Anta jógee ci géej gi te ne sëriñ Modou Mamoun yow am nga bis boo màggal bis bi nga war a màggal mu ne ko bu doon mu ne ko bu mooy bis bi ma sëriñ Tuubaa fekkee fii boobu bis war nga ko mën sa bisa mën nga ko màggal sëriñ sëriñ Modou Mamoun mi taawam woow mbokkam yépp ñi mën a ñëw ñëw ñi mënta ñëw ñëw mu tàmbali nag màggal gi muy muy gën di yokk nag di yokk ba agsi yii waaye bu njëkk dañ daan dañ daan jàng alxuraan rek limu at yi sëriñ tubaa am ci àdduna ñu jàng limu at yooyu mu juróom-ñaar fukki at ak juróom ñu jàng juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom ci alxuraan ñaan léegi nag ñu ngi jàng léegi ay juróom-ñetti junni wala lu ko ëpp tey ji nga xam ne Serigne Abou Mouhamad Mbacke moo fa nekk kii mooy euh, doomam ji ko fi représenté euh, bëgg nañu jàng lu ëpp loolu bëgg nañ lu ñu daan def ci màggal gi ñu yokk ko màggal gi nag comme ni ma ko waxee léegi monsieur le préfet xam naa ne gan la fi waaye bu ko bu ko fekkee ren euh, dana dana ne màggal gi bokkut màggal yi ma doon dem waaw ndaxte rëy na lool daal rëy na lool waaye monsieur le gouverneur mënuñu laa fay parce que euh, CRD bi euh, problème mu màggal gi rek ñu ci doon wax waaye yow li lijjanti ngeen ci problème boo xam ne problème social la lijjanti gi ci problème boo xam ne problème mu état la mooy muy diggante Sen'Eau ak ñi nga xam ne ñoom itam seeni client lañ seeni client lañ waaye ñuy dem ba réeroo réeroo nag bu amee waxtaan rek mooy tax ñu gindikoo euh, conseil conseil bu rafet nga joxe boo xam ne waa Sénégal danañ ko di danañ ko dégg waa mairie Mbàkke danañ ko dégg ba mairie Diourbel ndaxte Sénégal ñi jàmbat ne ñoom ñëpp ab bari nañu dul fay euh, agsi na ba Diourbel kon nag loolu liggéey bu rëy rëy la CRD bi daal liñ ci bëggoon lépp am nañ ko kontaan nañu kontaan nañu trop si ñi nga xam ne ñooy chef de service yi fi teew kenn ku ci nekk engagement bi nga jël defe naa ne danga ko def ba mu mat sëkk te boo ko defee ba mu mat sëkk màggal gi day romb fa mu nekkoon sax day romb fa mu nekkoon dana weesu réussir kon nag bokk yi nga xam ne teew nañ fii ñoom ñëpp ñoom ñëpp noo bokk noo seq màggal gi noo ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan yàlla àggala nu ci bisu màggal ga ñaan sunu borom tabaraka wa taala ci daraje yonente bi daraje Cheikh Ahmadou Bamba mu faj seen aajo yëpp te màggal gi luñ ci fas rek sunu borom may nu ko muy ñi ko teewe ak ñi nekk ñi ko teewewut ñu nekk Sénégal ak ñu nekk bitim réew ndax bis bi àttan na ko lañ fay jàng ci alxuraan àttan na ko junniy kaamil alxuraan mën naa faj soxla yëpp waxuma laa nag juróom-ñetti junni kon nag mel na ni monsieur le gouverneur euh, représentation bi ñu fi représenté président Macky Sall ak ministre de l'intérieur mat na sëkk dara manqué wu ci kon daal ñun sant nan la di leen ko jottali ñoom itam leen xamal ne sant nañu vraiment gouverneur ak ñi mu àndal son adjoint ses préfets ñoom ñëpp ñu ngi leen sant nañ leen bu baax a baax ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nañ ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah bañ la nuyoo nii bii gën a màgg yóbbante la nuyoo ci sëñ Abo mi xalifu Dar Salaam di dajal suñu nuyoo ñun ñëpp di ko sox sa loxo nga tegal ñu ko sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides ñu ngi bég lool ci ñun tam ci CRD bi ñu ànd ak yow pour waajal màggalu daal Salaam li nga xam ne fàttali nga nit ñi yëpp fi màggal gu jóge ba kër ba mu agsi fii kon boog màggal gu gu rëy la euh, damay wax ne sax màggal Touba màggal daa salaam bi moo ci war a topp ndax bii sëriñ bi di dem la joxe ndigal ba mu ñëwee ñu màggal demam waaye ñëwam ba mu ñëwee daa salaam la jubal kon bokk te mooy daa salaam moo ko sancal boppam loolu kon bokk màggal gunu ko rëy loolu mat fàttali la te fàttali nga ko ñun nag ñun suñu warugar mooy ànd ak comité d'organisation bi ànd ak yow yow mi xam ne yaay porte parole famille bi ñu ànd ak yow at yëpp di ko waajal ginnaaw mbas mi xaw na wàññeeku tuuti ñu delluwaat niñ daan màggale di jël te boole ak jël matuwaay loolu laay jëkk a wax nañu fàtte bañ a jël matuwaay ñi ñàkkuwul ci diggante bi nañu ñàkku ñi war a raxasu ñu ne raxasu moytu dajaloo bu metti bi loolu itam baax na ci mm. ndax màggal gi dafa rëy euh, gannaaw loolu damay sant waa maire yi ndax sama njëlbéen wax nee naa xanaa jar nañ ñu soppi doxalin loolu mooy place um commune yi maire yi ci waajtaayu màggalee gàmmu yi dafa war a nekk lu fës mm. ñu jëlal ko seen bopp administration bi jàppale leen waaye loolu mën na ni feeñ na tey mm. dëgg yàlla Mourad Gueye yi nga xam ne moo teewal maire Mbàkke muy Galoba daanaka lañ fi wax ñi ci ëpp doole en door sécurité daanaka moom gàddu na ko maire Mbàkke gàddu nag loolu nag damay félicité di ndokkeel maire Mbàkke nga xam ne li ñu doon séntu ci yéen tasu leen suñu yaakaar te nii nañ bëggeen maire yëpp ànd ak ñun parce que boo waxee wàllu euh, bâche mu ne dina loué bâche doy nga wax chaise mu ne chaise ya nekkoon Mbàkke yëpp dina ko loué nga wax vidange mu ne dina indi ay camion vidange nga wax set setal mu ne dina indi bu brouette ba pare nit ña ko def di dina leen di leen indi ñu taxaw nga ne làmp maire nit moom itam dina indi ay làmp changé en làmp yëpp kon daanaka lu jëm ci màggal gi wàññi naka ba bu den ay soxla ba mu xam ne amatul doole oh. day fekk rek suñuy service kon dañuy ñëw jàppale ko. bu dee ci wàllu chaise DMTA ñu ngi fi day ñëw bu luwee chaise yi mu am yëpp DMTA dolli ko yi mu am bu dee wàllu ONAS la bu indee camion vidange waa ONAS indi ñetti camion dolli ko euh, ci wàllu set setal ICG dina ñëw tam jàppale ko ci yokkal ko ay camion ak ay pelle mécanique waaw wàllu matelas moom mu ne dina indi matelas du doy maire yi moo jël engagement yi yëpp waaye service technique day ñëw appuyer ko loolu lépp ci coordination préfet Mbacké kon mbokk dama yaakaar ne suñu màggalu ren gii yàlla euh, def na ci sutura daanaka ndax loolu yëpp maire ko yombal ànd ak suñu service technique yi su la coordination di maire xanaa kay day des yoo xam ne euh, état moom rek moo ko mën muy wàllu kaaraange bu dee sécurité dégg ngeen commissaire li mu baax ngeen ñaanal ko mu ngi soog a ñëw waaye gis nañ taxawaayam ak engagement am dina indi renfort bu doy dina jokkoo ak préfet bu xool lan lañ soxla ci renfort gendarmerie waxi noppi li ko war yëpp dina ko def sapeur pompier dégg ko xanaa ñu moytu accident yi rek ak oto yi nga xam ne nit ñi dañuy yëg ci kaw di faral di daanu nee na accident yi ci ëpp bu ñu koolee ñetti accident ñaar ñi mooy ñu jag ci jag ci kaw oto daanu damay ñaan sax mu jeex parce que ay nit ci kaw oto te sapeurs-pompiers ñoom waxal seen bopp ne accident yi ëpp ñuy constaté tama ay ñuy ñàkk seen bekken mooy ku daanoo ci kaw oto loolu nag yaakaar naa ne war naa nekk luy saafaraw dëgg yàlla loolu ñu ngi leen koy ñaan ci wàllu ndox hydraulique de ñaan naa ñu indi fukki euh, bâche à ñu ñu yokk ci parce que bâche d'eau bu ne camion citerne la loolu deeñ ko indi samp ko foofu ba pare ak ñaari camion citerne yoo xam ne dañuy taxaw ba bâche yu manqué ndox ñu dem duy ko hmm. loolu lu doy lu dal xel la parce que nañ nekk ci jamonoy tàngaay te ndox mu dayul hmm. bu dee seen o deeñ ko ñaan mu daal di gën leen dimbali yokk pression bi waaye nag diggante waa Mbacke seen o une partie de population Mbacke seen o am na problème mooy dafa am ñoo xam ne nee nañ du ñu fay ndox loolu léegi mu mat passé na 700 million léegi mu dugg milliard bu fa duggul loolu nag ñaan naa la fii ne la boo leen delloo Mbàkke yow mi Serigne Cheikh Anta ak xalif bi ak euh, Serigne Mbàkke Mbàkke yi fa ne yëpp ngeen dajeek maire woo responsable yi nga xam ne ñoo diriger euh, contestation boobu ngeen woo leen toog waxtaan ndax ñoo ñu bañ ne du fay ndox ñu tàmbalee fay ndox bu ko defee waa seen o ñaan leen ñu négocier ak ñi nga xam ne ñoo fayul woon ndox weer yëpp wala at yëpp. ñu xool naka la ñuy fayee ndox. ndaxte ñii ñu ngi fay ñii fayuñu ñii fayul daal lañu fay loolu dina yombal li ngeen fi ñaan. ndax ñaan ngeen fi pression ñaan fi branchements sociaux waaye bu nit ñi amee ay millions fayuñu seen eau nañu waxante dëgg loolu du mën a yomb te du mën a du mën a du mën a du mën a gaaw loolu nag ñun dañuy dañuy dimbali parti yëpp ñu gaaw retrouver wu ndax ñu weesu loolu. rawatina sax ne gouvernement Sénégal ci boppam génne lu ëpp cent milliards bën na ay forage Sadio te ndox moomu nee na mbàqee ko tax a jóg mbàqe la jëm. day jaar Taïf waa Taïf daal di ji ci mën a am mu daal di ñëw mbàqe nee nañu sax bu forage yëpp pare ndox moom day continuer ñëw Diourbel kon ba gouvernement baa ngi def effort bu mag a mag a mag mag jëm jëmale ko ci waa waa Mbàkke lu jëm ay plus de cent milliards donc dañuy ñaan waa Mbàkke yi nga xam ne neewul woon daawuñu fay ndox. ñu changé position bàyyi position boobu waxtaan ak waa o si seen ndigal ak waa mairie ba ñu retrouvé wu ba fi li ñu nekkee ñu daal mu daal di jeex mu nekk lu ñu lu ñuy fàtte la ñu ngi lay ci yaakaar bu baax di ci yaakaar meer bi nga nekkaay ay acteur nekk ay intermédiaire nekk ay facilitateur ba nga xam ne dañ mën a dépasser crise boobu loolu daal wax nañ ko fi te aussi lu jaroon a wax la ndaxte du ñu wax liy defar màggal gi rek du ñu wax sax liy defar dëkk bi ndaxte ku defal màggal gi defar na dëkk bi ndax màggal gi ci biir dëkk bi la ne te population yi mooy ña dëkkee ña dëkkee Mbàkke ak ña dëkk ña dëkk Mbàkke yëpp kenn moyul parce que màggalu Mbàkke ak mbàkkeelu màggalu Tuubaa la mbà màggalu région bi yëpp la waaw loolu jaroon na ñu ñu souligner ko bu dee ma itam dina jël mesure sécuritaire yu ko wax euh, yu ko yu ko war bu dee service d'hygiène déjà dañuy fexe ba xam ya ñu war a pomper site ya kër ya waaye mairie encore taxawoon na pour génn produit bi bi nga xam ne moom la ko war a jox pour ñu compé kër yi. kon kay fa dëgg yàlla encore une fois gàcce ngaalaamaa waa waa waa mairie. bu dee ca wàllu wérgu yaram taxaw nañu déjà poste de santé avancé yi ñu ko wax yi ñu fi wax dañ ko génne dañ ko taxawal génn ay garab aussi loolu ak personnel yi nga xam ne ñoo fay ne loolu daal yaakaar naa ne loolu ñu fi wax eaux et forêt matt mi di jarul nopp jarul wax ñoom deeñ def permis gratuitement waa élevage day ñëw xool la lañ fa war a lewetal ak buñ ko euh, lewetalee ba pare ndax yàpp wa euh, mën nañ ko jëfandikoo ñoom ñëpp jox nañ seen engagement yi yaakaar naa ne daal suñu màggalu ren gi incha allah yàlla dinañ ci def sutura préfet bu jógee dina convoqué euh, le vers le 14 bu ko defee li ñu fi wax yëpp ñu dem à préfecture ak comité d'organisation bi. ñu xool point par point fan lañ ci toll. lu ci baax ñu ñu dëggal ko lu ci sooxe ñu jubbanti ko. pour mën a jëm ci màggal bi am màggal gu mucc ayib bi nga xam ne dina rafet dina taaru képp koo xam ne ñëw nga fi di nga mën a jàng alxuraan jaamu yàlla. màggal màggal gu neex. ba euh, gan ya delluwaat seen kër waa Mbàkke xam ne màggalu ren gi. Mm. niróo la benn benn màggal ci wàllu organisation. Mm. loolu la ñu bëgg loolu la ñuy ñaan yàlla nga ñaanal ñu si bu baax a baax ñu réussir ko te loolu ndamu euh, Mbàkke la hmm. ndamu région la waaye ndamul réew mépp la ndax euh, sëñ tubaa hmm. sëñ Touba am réew mi la sëñ Touba àdduna la hmm. waaw loolu euh, ñëpp ci war a war a jàpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu